Serigne Touba xaadalahu wallahu maxtaara lahu nee na ñaari bayit yii ëmm nañ mahanaa mu sew moo xam ni aajana xamle wasirtu abdahu bi zikrihil hasan wa innahu maha dalali wal wasan lahu manami radiyan anhu waan wasilati salla alayhi haysan ndax bi ma waxee maha dalali wal wasan ba ma waxutood woon ci ginnaawam lëxoo manaam yi dootuma nelaw li des ci samak sax ci àdduna wér na lool